donc yéen li ngeen def c'est un exemple un bon exemple ay doomu Tuubaa ngeen ay taalibe murit ngeen te nee nañu dëkk ci dëkk bi tekk fi dara moo ko gën di kàddub sous-préfet Mansour Diallo bu Ndam yëkkati ko nag bi muy réceptionné don bi nga xamante ni association des opérateurs pour le développement économique de Touba jóg ngir xeex coronavirus bi jàppale askan wi ci jamono ji ñu nekk ci état d'urgence seen activité wàññeekook seen ay koom rax ci dolli couvre-feu bi nga xamante ni am na lu mu gàllankoor ci ñoom lu bari dund gi nag ñu indi ab ndimbal la boo xamante ni mën naa wàññi jafe-jafe yi sous-préfet bu Ndam bi mu koy jël ngir jébbal ko ay kilifaam wala yóbbu ko ci ñi ko soxla fii seen siège bi nekk ci Touba gaar bu ndaw dellu ci waat na ci lim bi dañ fi ñëwoon donc di accuser réception réceptionné donc produit yoo nga xam ne bi moom la ñu andi mais tamit tegale nañu si tamit euh, cinq millions yi nga xam ne bi kooku ñu ngi ko war a yónnee euh, trésor pour euh, lutte contre kii bi nga xam ne bi moom au niveau national foofu lañ koy taataane foofu lañ koy collecté produits yi nag yu ñu fi andi bokk na si ay denrées alimentaires quinze tonnes ceeb yi ñu andi pour jagleel ko daara yi ak yenn ñu néew doole donc yooyu daa ñu ko teg suñu loxo tamit ñu xool luñ koy séddalee sëriñ daara yi donc euh, ñëpp daal daañu fexe daal ñu joti si waaw lépp daañ fexe ñu joti si ak tamit ñi nga xam ne ñoo néew doole tamit daañu leen si sedd bu sobee yàlla waaye tamit euh, joxe nañu lu toll si vingt bidon euh, diwlin vingt kees lay doon vingt kees vingt kees vingt keesu bidon diwlin n'est-ce pas ak vingt keesu madar n'est-ce pas ak vingt keesu eau de javel ak euh, cinquante euh, paquet de savon donc loolu la ñu ñëw tey jii donc réceptionné fii. kuréel gi njabootee opérateur économie yi nekk Touba. ñoom nag wuy nañu appel njiitu réew mi bi sàkku si ñëpp ñu dugal seen loxo si xeex bi ca nañ ko mënee. di wuy président si appel bi mu wootee comme citoyen yi di ko xamal ne ñoo ngi ci ginnaawam li ab tàmbali la bu buñ def waaye du fi am solo yàlla ndax ñu ngi si acteur bi di liggéey te gis nañ tam fi mu nu féete kon ñu ngi ci ginnaawam. kon ñu fas yéene développé suñu alal roy sëñ bi di woo bépp commerçant bu nekk ci dëkk bi ak bépp secteur boo féetee nga ñëw jàppale président si xeex Covid 19 yi. ñii di yëngu si wàllu koom si Touba di jënd ak di jaay ñoom it ñu ngi sensibiliser askan wi pour ñu mën a sàmmoo ak digle yi bàyyeekoo si kilifa yi seen xam-xam màccu si wàllu wérgu yaram su ko defee ñu mën a xeexandoo coronavirus. askan wi di leen mobiliser bépp citoyen sénégalais. comme gis nañ tawat ji di ko dégg si tele yeeg rajo yi ni mu demee di faagaagal lu bari si bitim réew ñu ñaan yàlla ba du ak si ñun naam dugg na si ñun waaye nag xëy na ñaar ñi mu jot a gën jël seen bakkan ñaan yàlla yërëm leen taxaale na jëna di jaale seen njaboot di ñaan itam ñu tëdd suñu borom yëkkati leen fagaru daal ndax fagaru lislaam moo ko diglee booba léegi bi coronavirus duggee ci Touba kuréel yëpp dugal seen loxo ci xeex bi ci anam buñ ko yaakaaree nii buñ ko fa dugalee dina wàññeeku bu dul ay produits sanitaires dina am ñu joxe ay produits alimentaire am ñu wàcc ci terrain bi ñii tamit ñoo ngi ñaan boole seen doole ñoom ñëpp nag jublu ci coronavirus abale